bi ñu génnee ci élection bi ñeenti candidat opposition la woon bi ñu génnee ci élection am na tey ku dem ànd ak moom su génnee naan daf ñuy attaqué te bi ñu defee élection bi ci gannaaw ëllëg sa la ne daf la sàkku daf maa bëgg gis ñu daje fii kër euh, benn ci sama soutien yi muy kër Atepa man moom Boubacar Camara Atepa dama am ay seede mu ne il faut ñu yëngal réew mi il faut ñu génn manifester parce que waa ji dafa foqati ne ma nag comme yow ndaw yow la ñu àndal dañu génn manifester ma ne ko du génn manifester parce que xeex ba buñ ci njëlbeen ba lañ ko waroon xeex biñ leen wooyee génnu leen ñaata lañ fi manifester pour mu joxe carte électeur yi ñu sànni ñu gaz lacrymogène musoo génn kon bu ñu toogee ba tey mu def li muy def te PV yëpp say représentant signé ko sama représentant signé ko keneen ak keneen PV yi wane ni am na 58 pour cent xaw ma nga ne nañu génne xale yi man du ma wax benn xale mu génn te yow mi di wax ni nañu génne xale yi bu ñu bu génn jotee doo génn mu woote de xale yi génn mu am ay xalem yu génn dem RTS ñu jàpp leen fa ñenn ñi sax defe naa xaw nañ leen sonnal tuuti moom jour bi xale yi génn dafa jël mu dem Touba demul génn de ànd ak xale yi kon kooku tey su dee bi ñu demee weesu loolu mu mu newaat il faut ñu gisee ñu gisee ñu bëri fekke woon nañ ko ñoom Pape Diop ñoom Adjibou Soumaré eh, ñoom Malick Gakou Boubacar Camara man li ma wax dafa am seede. Mhm. ñu gis waat may leen xam nga lan mooy solution bi du génn di mbedd mi di xeex xam nga luy solution bi mooy ñun ñëpp nañu bañ a reconnaître légitimité am nañu boycotté ne reconnaître nañu ko légitimité am nekk na nga dem da dem prêter serment nekk président dawal cinq mais bu ñu ko reconnaître politiquement loolu moo gën a métti parce que musul am Sénégal. mille bi ñu ci génnee nit ñi dañoo woote félicité 2012 nit ñi dañoo woote félicité ma ne ko loolu moo gën a deux mille 2000 mille 2007 euh, euh, ñu bëri bañoon nañu félicité mais am na benn candidat bu ñëwoon deuxième dafa woote félicité mais ñu génne élection ñeenti candidat ne duñu la duñu wokk duñu duñu woote duñu félicité loolu moo gën a métti ci ci kii jiite ñu d'accord ne loolu la ñuy def ñu dem daje siñe suñu kayit Sénégal yëpp gis nañ ko tey ana ñooñu ñëpp yow noo mu ne ni reconnaître ma légitimité nit ba pare nga dem mu lay nommer di la jox ay mbir nga dem toog ba pare wëlbati ku ne da ngay attaquer ab opposant gis nga dignité mooy lépp ci nit bu jógee ci yow rek dara desul man nag position boobu ma jëloon en 2019 mars 2019 ne je ne reconnais pas sa légitimité ba keroog mandat am di jeex position boobu laa jàpp